il dit que dama sàcc oto dem dikk dem ak moom ça doit vous paraître bizarre je vous envoie la carte grise oto baa ngi ni elle est garée ici derrière turu dem dikk gisoo ci bu fa xamul comment fonctionne un car plan ndeysaan mu ñëw ñu jàggal ko ko man c'est sur la base d'une résolution du conseil d'administration du 31 janvier 2014 la ñu def car plan bi deux fois première fois dama ko bañ ne leen situation maison ne le permet pas depuis 2014 c'est autorisé ba may ñëw balaa may ñëw janvier 2014 j'ai refusé le car plan j'ai dit les les directeurs vous allez marcher à pied la situation de la maison ne le permet pas bu Dakar dem de demee ba yenn situation yi ba ñu def du foncier j'ai décidé de faire du car plan pour permettre à mes directeurs de marcher de rouler comme tout le monde jëndal leen ñoom ñëpp ay oto sur la base d'une résolution du conseil d'administration que j'avais refusé mais mujj ko accepté quand le temps l'a permis et dans cette résolution là il est marqué clairement je mets mon doigt dessus pour ceux qui veulent zoomer le DG on t'autorise à avoir un véhicule à 58 millions lui quand il est arrivé le véhicule en question bu ma koy dem di def réparation sax le prix il est là là là vous verrez cinquante huit millions lui boo mu ñëwee man ça six ans j'avais pas de voiture de fonction su ma nekkoon oto bi dama koy gaare fii du daw c'est ma voiture maa koy fay se un crédit c'est moi qui le paye su ma euh, euh, meloon ñenn ñi dama koy gaare fii Et dans mon contrat, il est marqué, il a droit à nu mu tudd encore une voiture de fonction du boobu beneen la une voiture de fonction mais defuma ko je roule avec ma voiture privée tout ça parce que kër gi moo peut-être moo demee noonu du ma nekk fii di def le voilà en six ans voilà ce que j'ai comme véhicule e c'est une véhicule que je paye moi-même aujourd'hui c'est ma voiture mais moom boobu mu ñëwee est-ce que carte blanche bi jeex na depuis ça fait pas trois mois euh, ça fait trois mois qu'il est la ñëw ça trois mois il a acheté une voiture de quatre vingt millions il n'a qu'à m'attaquer Platinum mooy bi Macky Sall di dawal Platinum V8 Land Cruiser bleu euh, pétrole <laughs> Platinum la Bamboula man la wala kii la dafa xamul wax wax na il la dem leen vérifier ko dem leen buntu direction générale bu bees point e ngeen ak seen zoom vous allez voir la voiture quatre-vingt-cinq patates mes chers amis en trois mois